bëri dafa am ay kàddu yoo xamante ne dañu koy yëkkati pour duut ko baaraam li nga xamante ne cette fois-ci mooy justice sénégalaise rawatina yéen des fois conditions yi nga xamante ne ci ngeen di ci ngeen di liggéey dañ koy boolewaale rek juge dem cette fois-ci juge bi laay waxal ak liggéey yu métti yi nga daan yi doon liggéey parce que fois dama lay dégg nga ne di nga gis koo xamante ne benn juge mun na plonger wu ci dossier toute la nuit war xëy suba ñëwaat fi nga xamante ne moom mooy moom mooy tribunal war a continuer li nga xamante ne moom mooy liggéeyam parce que am na ci dossier yoo xamante ne yenn secteur yi posé wul problème fii dossiers yi la plupart du temps yu laal ay ñu yëngu ci wàllu politique rek la plupart du temps moom mooy moom mooy moom mooy andi coow jamono ji boo déggee des fois d'honorables juges ay sénégalais yu dem aussi jàng am seen diplôme ñëw pour servir li nga xamante ne moom mooy la justice ñu leen di wax yenn wala di leen dëkkal fenn c'est vrai nag corps boo gis am na ci ay brebis galeuses mais aussi dafay war li nga xamante ne moom mooy lenn ci pilier yi nga xamante ne moom mooy dëgëral réew république ñu jox ko aussi li nga xamante ne moom mooy cëram muy justice qu'est-ce que cela vous fait en tout cas c'est ça fait très mal parce que en réalité am na ñoo xamante ni da leen xam ngeen euh, collaborer man par exemple nee naa la teel naa dugg ci justice depuis 96. ba léegi. maa ngi dugg à l'école di dem di defi ay euh, ay stage di dem di assister audience tribunal. depuis 96 mhm. ah. Euh, di di gis nit ñi di gis évolution justice di gis condition yu metti yu nit ñi di liggéeyee gis nga liggéey juge ku ko bëgg def ci dans les norme da lay jëlal sa temps lépp temps yépp la lay jëlal. da nga gis ñun ñëpp jaar nañ ci veillu délibéré ñoo xamante ni dañuy fanaan dañuy fanaan bind la veille des des délibérés waaw parce que war nga ñëw le jour le lendemain présenté à tes collègues yow li nga li li nga xamante ni moom nga jàpp sa proposition voilà man nekkoon naa siège moo tax ma xam loolu da ngay passer des nuits blanches dem defi ay recherche dem ay bibliothèque jëli ay livres di gëstu liggéey bu intéressant la nag le le le travail de juge c'est extrêmement am na aussi ñu koy jox ak xam ci côté yëpp ils sont indépendant ils sont rigoureux compétents voilà euh, c'est dommage pour ñooñu et ñooñu c'est la majorité c'est dommage que euh, justice yegg fii ba ñu waxee magistrature ñoom dañ leen ci boole. dama la dégg nga ne. waaw c'est dommage parce que li ñuy wax yëpp ñi koy ñiy doxal li nga xamante ne moom mooy wàllu yoon mooy la majorité. mooy la majorité et c'est cette majorité la qui a ñooñu euh, euh, parce que en, en fait gis nga ces affaires la les affaires euh, politiques ne un qu'une minorité des affaires qui sont traitées et léegi li may wax mooy système bi. il suffit nga jàpp ñenn ñi ñenn juges yi nekk des juges yu nangul pouvoir bi pour que tout le système tout le système 500 magistrats lañu juróom ñi soo leen téyee téye nga système bi e ci perception bi nit ñi dañuy am toujours perception que justice bi yëpp a say mais yow li ma alors que alors que. vous avez été procureur te pourtant mosoo nangu et pourtant le procureur relève directement du du du ministère euh, de la de la de la justice ministère public mais yow mosoo nangu yenn yi. man ak ñeneen ak ñeneen am na procureur yu fi nekk. c'est clair que vous ne que que en fait, pas, que en fait bëri nañu. c'est l'écrasante majorité parce que exception bi moo dem ba li nga xamante ni moo waroon nekk exception bi parce que ñenn ñi dañuy jox poste clé yi. poste clé justice soo gisee procureur Dakar moom moo yore pratiquement lépp su su doxul du ñu gis li procureur Thiès li procureur euh, Sédhiou lu procureur Matam di dem xam nga dañuy jël ñëpp dugal leen loolu nag moo tax ñoom ci seen bopp aussi mooy am na liggéey bu ñu doon yàgg def ñun mhm. suñu biir benn genre euh, euh, saa yu ñu demee assemblée général à la au mois d'août dañuy toog waxtaane ay ay ay kii yu méttee fay nekk parce que c'est en interna xam nga magistrat yi ñu bëri li di am ni neexu leen mais obligation de réserve de réserve mënuñu wax mënuñu wax et c'est extrêmement compliqué waaw léegi nag nit ñi gis nga li am nii man lu ma ci euh, demander sénégalais yi moom mooy euh, et c'est regrettable nit ñi di dem bay menacer mu dégg ay menaces de mort wala nit ñi taxaw naan fu ngeen gisee magistrat def nii def nii. di publier magistrat yi ay photos comme ay sénégalais lañu comme yeneen sénégalais lañu. comme yeneen sénégalais lañu comme ñeneen ñi ay opinion yi lañu am peut-être que majorité bi suñuy voté duñu votel ñu fi nekk <laughs> loolu nit ñi dañ ko war a xam mais loolu mooy war a tax ni nit ñi waruñoo ñëw di jeter. vraiment l'anathème sur tout un voilà surtout nag ba ñu dem ça c'est récent ça c'est récent aussi loolu dañ ko war a vraiment fustiger dañ ko war a condamner que des menaces nit ñi di menacer ay magistrats di mena di leen menacer ci seen intégrité physique loolu c'est inacceptable